الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر والذي إذا دعي أجاب وإذا استعيذ به أعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها الناس فإنها خير الوصية في كل وقت وفي كل حال يقول جل وعلا في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala mii borom mindee fi yàlla mi yërëm jaamam yépp ci kaw suuf waaye di jagleel yërmandeem gi ñi ko doon topp fii ci kaw suuf ak ci àllaaxira yàlla mi nga xamante ni képp ku tedd moo la teral waaye yàlla mi nga xamante ni képp ku muccit dafa fekk nga am ngërëmam yàlla mi nga xamee ni képp ku ami xéewal muy yokk dafa fekk mu defal la xéewal nga sant ko mu dolli la la in shakartum la azidannakum yàlla mi nga xamante ni képp ku def bàkkaar bu dox sa diggante ak moom boo ko jéggaloo mu jéggal la yàlla mi nga xamante ni nag moom kot mooy ki ñu war a ñaan te boo ko ñaanee mu nangul la yàlla mi nga xamee ni képp ku daw làqu ci moom mu musal la ci lépp loo xame ni luy lore la ñuy seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad jaamam la ndawam la yal nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam baba yàlla suñu borom di doon suufam si ñu dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla muy yóbbal yóbbalu jàmm bi bi muy soxla fépp ak ci waxtu wu ne ragal yàlla bi tax ba jàmm bi lépp lu mu am muy ab soxla soxla su mu mën a doon nee na yàlla bu dee danga ko ragal mu fajal la boobu soxla te it ragal yàlla gi mooy li lay yóbbee ci lépp loo soxla mu faju te say xéewal di bàyyi ko fenn fu nekk ci jamono ñu nekk wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yaxtasib mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci ab bàkkaar bu rëy boo xamante ni day yàq sab jikko bàkkaar boo xamante ni it say tuyaaba ji nga jotoon a am da koy lekk ba mu jeex tàkk bàkkaar bi nga xamante ni ginnaaw bi mu la defee loolu fa muy mujjee ak yow mooy ci ak mbugal yàlla na ci yàlla musal bàkkaar boobu mbokk yi mooy ak zulm mooy tooñ tooñ mbokk yi mooy nga jalgati àq bi dox sa digganteeg sa boroom walla àq bi dox sa digganteeg sa moroom mbokk yi tooñ yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo ci wax ni ci xadisu qudsi mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaa ibaadi yéen sama jaam ñi inni xaramtu zulm man de dama xaraamal tooñ ala nafsi ci sama jëmm am kenn waru ko tooñ moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ni wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tadaalamu ma def ko nag mu nekk seen diggante mu nekk ab dig seen diggante ba kenn bu mu jalgati àqi keneen mbokk yi lii di tooñ muy jalgati bi dox sa digganteeg sa boroom bi njëkk te yàlla mu ni du ma ko jéggale mooy shirk inna allaha la yagfir an yushraka bihi wa yagfir ma duna dalika liman yasha bokkaale mooy nga jël àq suñu borom jagleel ko keneen bu ma doon joxe misaal mooy ngay ñaan keneen ku dul yàlla te kenn rek mooy ki jara ñaan mooy ki ñu war a ñaan muy kii nangu ñaan mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala soo ko defee jëmale ko ci keneen rek tooñ nga yàlla mu ne bàkkaar boobu du ma ko jéggale nag wa yaxfir maa duuna daalika liman yasha beneen bàkkaar bu ne mën naa ko jéggale ba mu des to ba mu des bokkaale bokkaale ba bàkkaar bi dax nag sa diggante ak sa mbokk mooy bi ci njëkk asab mooy ngay ŋàññi sa mbokk jullit wala nga jël ak lenn ci ak boo xamante ni ak xam la moom nga koy won ak sañ-sañ ci pouvoir masalan nit ki nga nekk ci posture boo xamante ni yow sa simple signature rek mën naa yóbbe nit ki ndungu siin nga won ko sa pouvoir ci ak tooñ goo xam ne yaa ko tooñ wala nga ngay jëw sa mbokk jullit wala nga koy fental fent mooy nga koy sosal moom la ñuy wax fenn yii yëpp ay bàkkaar la yoo xamante ni ay ton la yu jox sa doxoon sa sa sa digganteeg sa mbokk nit muy bàkkaar boo xamante ni muy tooñ boo xamante ni yàlla mu ni lool moom yéen yéen a koy régler seen bopp yow yàgg sa diggante ki nga tooñ man yàlla mën naa laa jéggal bàkkaar boo jëf ba mu des nga tooñ ma muy bokkaale waaye sa digganteeg sa morom nag yéen yéen ay dox di jéggalante seen li dox seen diggante tooñ nag mbokk yi dinañ ko suuxal ci bërëb di ko ci suuxat ci kër ci quartier cim réew ba mu law ci àdduna bi ba mujjee indil nag àdduna bi ak ak ak guuta mooy alkande xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek da yàlla dëppagul suuf gi alak ñépp ngir xaar beneen xeet ndax mooy xeet bi mujj waaye yaay sa saa su nekk yàlla suñu borom mu ngi joxe ay alerte alerte yi ay tremblement de terre ay vicissitude mooy ay catastrophe surnaturelle yoo xamante ni saa su nekk da nga koy dégg taf say nopp mooy ay rey yu jégg dayo ay mbir yu jégg dayo mu lay yéem fekk ay alerte la yoola yàlla yu ñu yàlla di alerte di wane ne am na tooñ bu nekk seen biir na ngeen moytu ndig tooñ googu noonu ndax mën naa yóbbee seen dund gi ay alkaande wa tilka al qura ahlaknahum lamma zalamu wa jaalna li mahlikihim mawida mbokk yi li gën a nag raglu ci tooñ mooy lii ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ittaqu daawatu daawatul mazlum mooy te ndiku leen ñaanu ku ñu tooñ mu ni fa innaha tuxmilu ala algamaam nee na ñaanu ki ñu tooñ bi ki ñu tooñ ne allahuma ñaan nga buy yëkkatiku di nga ko ca di jëm fa suñu borom ne nee na amul lenn luy dogaale ñaan gi mu baasharatan la jëm sa moom bu egsee ba ci moom nag doléance bi lii la yàlla suñu borom di wax mu ni wa izzati yàlla mooy giñ nee na ci sama teddaange wat naa ko ci sama teddaange wa jalaali wat naa ko ci sama màggaay man yàlla yàlla mooy xaatu ci ñaan gi egsi ci moom ci kañ tooñ mu ni la ansurannaka walaw baada xiin dinaa la fayul donte sax plus tard lay nekk mais dinaa la fayul subhanallah mbokk yi yoon saa saa nee na walaw fajiran nee na donte ki ñu tooñ du ab jullit donte ab kàccoor la waaye dañ koo tooñ mu ñu la bàyyi naa la ak yàlla ñaanal la ci yàlla nee na ñaan googu kooku kàccoor gi nee na laysa fi nafsihi laysa fi nekkul ci nekkul ci moom loolu ci moom la nekk waaye du àq bokk du àq ma nekkul bokkul ak lu dox seen diggante ñaar mbokk yi nañu mooy suñu di ko tooñ te mag ñi dinañ wax ni tooñ du gàllaaj aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu fàttali waat suñu bopp dinañ ko fàttali mooy kii tooñ ak lu mu nekk nekk ci donkaasi gi di tooñ rek di tooñ rek di tooñ rek nee na bul jàpp ne mukk luy neen la jàppal ni bis dina ñëw yow ak ki nga doon tooñ ñëpp yàlla taxawal leen ci kanamam ngir àtte li nga xamante ni moo doxoon seen diggante ci ak tooñ wallahu yaxkumu baynakum fi ma kuntum fihi taxtalifuun loolu du njàkk faw mu am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toogoon ak saxaaba yi di waxtaan ak ñoom mu li leen ab bis atadruuna mal muflis ndax xam ngeen lan mooy fayit ku fayit loolu la posé question bi ndax xam ngeen lan mooy ku fayit ñu ne ko al muflis fii na ki nga xamante ne mooy ki fayit ci ñun ñun niñ ko jàppee mooy koo xamante ni yoroon na alal alal gi dem ba ba ba ba ba mu daanu bu doon commerçant la mu perte bu doon ku nekkoon ci nguur la mu dem ba nguur gi jeex amatul xaalis mu perte amatul xaalis yamul ci loolu sax waaye ñi mu amaloon ay bor sax di ko taxawu ci bor dañoo mujj moom amatul alal gu mu leen jox ñu yëkkati ay matériel di ko fayee ñun loolu lañ jàppee ku ku ku fayit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen ki fayit ci sama umma ci sama xeet mooy koo xamante ni yowmal qiyaam dafay ñëw di salaatin moo rawoon julli kaata daan julli rek bu dul farata ma ngay naafi la wa siyaam ku mënoon a woore wooru gàttangali sax daaw ko raw waxuma la kooru farata gi mais kooru gàttangali ayaamul biid yeeg alxamis yeeg ajjuma yeeg demoon na sax ba egg ci siyaamu daawuda ku wooree tey wari suba woor tey wari suba noonu lay jàppee dundam wa zakat mu ni azaka tamit daawu ko rate daan joxe azaka ba dese xaalis di saraxe sax ndax ci zakat la bokk waaye mu ñëw yowmal qiyaamati fekk ne amoon na ay àqu yu sew sowaan yu ñu amoon ci digganteem ak nit ñi tooñ kii jëw kee fental kee dóor kee jaxase ay nit jël pouvoir wane ko ci kaw nit exécuté ko ñu jël kooku noonu jàll ak moom foo xam ne moom ba mu ba mu signé signature bu la ca pare fekk kooku noonu fa muy mujj sax xamu ko yooyu yëpp nekkoon ay àq yoo xamante ni amutoon maîtrise ca ba muy nekk ci pouvoir te yow ba ngay gane àdduna yoroo dara indaale woo dara yow kuy gane si àdduna nii ngay ngëbee say loxo indaale woo benn garaat nga dem ba tege ci ay ay ndom ay ndom ba tànk nga commencé tege di tooñ mooy niveau bi gën a kawe nag waaye ki faqiir sax mi ngi tooñ ay mbokki dëkkandoom ci ay ak yu sew saan yoo xam ne du ko bàyyi xel yoon saa saa nee na nag ànd ak jaamu yàlla googu doon def yëpp ñuy jël ci say xasanaat sa yiw parce que foofu noonu laa laa maala wala dirham amul alal amul lenn looy yóbbaale foofu ci yawmal qiyaamati loo xam ne danga koy fayee foofu alal amul say tuyaaba la ñuy jël di ko fay nit ñi nee na ñuy jël say tuyaaba di ko fay nit ñi di ko fay nit ñi ba say tuyaaba jeex takk xanaa du ay bàkkaar kese la dese wala taziru waziratun wizra uxra yàlla du jël jëfu ku baax kii di ko jox kii nii yàlla wa maa rabbuka bi zallaamin lil abid yàlla du tooñ kenn lan lay mujjee nag nit ñi seen i bàkkaar la ñuy jël di ko fayee di ko fayee di ko fayee di ko fayee ba amelatul kenn àq yam saa seen neen summa kuriha fi naar subhanallah nen ñu koy jël tëbbal ko biir safara yal na ci yàlla musal ak mbokk yi ak tooñ fii lay jëmee mbindeef bi kon nañu inna allaha yamuru bil adli wal ihsan yàlla dafa digle maandu ci doomu aadama moo xam sa njaboot moo xam ki nga séqal liggéey moo xam sa dëkkandoo moo xam ñi nga gouverner yàlla dafa bëgg équilibre ci kaw suuf moo tax mu teg ay àq seen diggante mu ne na ngeen moytandiku àq yooyu noonu ndax yowmal qiyaam kenn ku ci ñëw man maay al adil maa gën a maandu képp kuy maandu te ci sama maandu te lay teg ak teg lim ci dénkaanaat mooy na ngeen di rafetal nag ngir àq yooyu noonu di mën a dañ seen diggante mooy waral ñaari feet yi ñu gën a miin muy tabaski ak korite bi ko ñetteel di bis bii di bisu aljuma muy feet yoo xamante ni li ci li ci war liñ ci digle comme sunna mooy ngay wax sa mbokku juri taqabbalallahu minna minkum yàlla na yàlla nanguwul ma te nanguwul la ndax jaamu yàlla bu rëy nga jóge boo dee korite yaa ngi jóge ci jaamu yàlla mëgg mooy koor boo dee tabaski yaa ngi jóge ci jaamu yàlla bu mag mooy aj wala ci fukki fan yi nga xamante ni fukki fan fukki bëccëg yoo xamante ni la nga cay jaamu yàlla moo gënal ngay jaamu yàlla ci yeneen fukki fan yi bëccëg yu dul fukki fan yooyu noonu nga jóge ci fukki fan yooyu noonu yàlla ni nag nang ku nekk na ñaanal sa moroom nit yàlla na ma yàlla nangul te nangul la jaamu yàlla gan ca jaamu waaye ñun dañoo dem ba formule ci ci baal ma àq baal naa la ngir ñuy wàccontoo ci àq yu sew sewaan yi comme que nag yooyu ay ay période la yoo xamante ne day xëcc day sori am nañ beneen feet muy aljuma saay boo ci jullee juma ba pare wala ci bis bi yépp am nga temps wu di baalu àq say say dëkkandoo say mbokk say jegeñaale ngir àq yu sew sewaan yi nga xamante ne maîtriser wu ko sax wala yii sax xam nga ne yaa ko tooñoon diw mii nii nga dem jarul ngay egg sax ci àq bi waaye jéggaluma jéggal naa la yàlla ñu yàlla boole jéggal ndax jéggulu ki rëy du ko def ki wàccee boppam xam ni ab jaam la kooku mooy kiy jéggulu yàlla ñu yàlla jéggal rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salati yarhamukumullah